fële si troupe jànqeen bu Thiès moom la ñu wax ne moom moo ñàkk bakkanam ñu jébbal ko nag démb fële nga xamante ne mooy euh, sëgi saraxal fii nga xam ne mooy këram gisi ak mbaaw mbokk yeeg xarit am di jàmm ñu xool ni nga xamante ne la rendre hommage suñu yaay jooju di Daba Soumaré nag fekk fi ay mbokki artistes am yoo xamante ne nii euh, seen taxawaay rafet na maman Awa Camara daal ko ñu ngi lay maa ngi lay fay ndey ñu ngi lay masaw li waaw yow tam massa ku nekk mën na ko jaale boppam ndax daba daba Sénégal yëpp la woon. noo yëgee xew-xew bi nga xamante ne moom moo dal si askanu Sénégal depuis démb ba léegi. waa metti rek damaa xëy sangu rek solu bay pare pour liggéey rek belaa woo ma tout le temps dañuy déggante si affaire daba mu woo ma ñu waxtaan nuyoon te ma ne ko ani daba ndax yaa ngi koy dégg mu ne maman daba ma ne ko waaw mu ne xaama paas roxee mu jox roxee roxee itam nuyu ma daama xaama paas euh, bela ma ne ko yéen la ngeen may ping-pong lan moo xew lu xew wax leen ma ko parce que fii amul lu ñuy nëbb léegi dee moom ci la ma annoncé nouvelle bi mu diis lool waa ndax wax dëgg yàlla tane woon na bañ am si moom yaakaar que ne daal dinañ ko gisaat si planche yi mu ñëw joué waat ak ñun nag suñ borom noppi na ci dogalam ba Euh, mu nekk loo xamante ne doy waar loolu la gannaaw bi mu tëddee si tëdd bu xaw a yàgg ñu ngi dégg ay seede yu bellaa di wax sax si yow ne yaa ngi si doon taxaw bu baax a baax di fëgg ay buntu pour euh, euh, faj gi gën a jëwandal. waaw wax naa ko nee naa ko tooñ nga ma waroo ko woon wax ndax ba ma koy def jublu si woon pour lu nit ñi wax dama def sama devoir rek ak sama digganteeg moom ndax yàlla daf ñu boole woon ñu bokkoon barab bu ñu nekkoon di liggéey ba ñu ñun ñëpp ñu jóge fa mais terewul ñu continué woon garder relation yi di di demante di fekkante di bokk ay liggéey tamit waaw te lu mel noonu bu amee dañuy bëgg tamit faj ko ni ma ko waxee sànq rek comme ñoom suñu ay njiit dañu toog ñu wax ne bëggatuñu dégg benn artiste bu feebar ñu ko yelwaanal kon am nañ sañ-sañu bu feebaree ñun tam jóg suñu tànk dem seeti gi leen pour ñu mën ko dimbale ñu mu faju ndax ku ne xam na ne Sénégal faj dafee métti waaw njabootam def nañ lu ñu mën goroom jëkkëru awa yomb def na lu mu mën ay doomam ñoom maari ak ñoom aadama xale yi def nañ lu ñu mën mais na dafa am seen doole fu mu yem day am foo xamante ne il faut ñu am loxo bu leen gën a gudd pour mu dimbali ko loolu rek moo taxoon a jóg ñu gis jafe-jafe mel noonu day faral di am si artistes yi nga xam ne bu ñu nee ba tëdd feebar de fois fej gi day xaw a du xaw a yëwanal daal yow en tant que artiste nga nekk si euh, nan nga koy dundee. mu métti rek ndey nee naa sànq dañuy ñaan yàlla comme dem moom mënut a ñàkk saa su ko suñu borom dogalee rek yàlla na ko yàlla yombal ñu dem bañ fee toog di feebar di sonal kenn parce que ku feebar sa njaboot amuñ luñ la fayee moom maara day taali waaw parce que ñi nga xam ne ñoo ñu war a dimbale dimbale wuñ ñu ñi ñu war a jàppale jàppale wuñ ñu comme jàppale wuñu dañuy ñaan suñu borom bi nga xam ne mooy dogal bés bu demi jotee rek na dem bi yomb lool te sedd guy kenn bañ koo yëg. mu nekk lu métti lool ndax nga nekk si millier bi Daba Soumaré mën nañ def na plus de 40 ans euh, bi ñu ko xamee si jànqeen ba fi mu toll nii tey mu nekkoon koo xamante ne nii kenn dootu ko nattable Sénégal mu dem ba tëdd feebar euh, autorité yi war a jug jël ko en charge gannaaw ay doomam fi seen doole fi mu yem yow tam nga nekk naataangoom di si dox dox bu am solo ñuy faral di gis yu mel noonu si kaaw artistes yi gisoon na fi le cas de ak ñeneen ak ñeneen ñeneen. waaw man ndax xam naa buntu yi ma fëgg yëpp direction des arts rek ñoo ma wuyu amul nag beneen bu ma fëggul mini dem naa ministère ba sonn association yi fi nekk représenté fi artistes yi ku ci nees ñoom woo naa la ku wax naa la ko mennum direction des arts daal ma jaare ko ci Khadija mu daal di gis euh, directrice waxtaan ak moom mu jox ma benn enveloppe ne ma yóbbul ko daba ma ñëw indil ko ko à part moom gisuma leneen mooy li ma la wax rek comme daal dem mënta ñàkk bës bu dem jotee rek na sedd guy kenn bañ ñoo yëg ndax wax nañu ba sonn wax nañoo wax fu ne wax fu ne ket a ket a ket ba sonn ñoom seen bopp ñu taxaw wax ne bëggatuñu ñuy ketal benn artiste bu feebar. kon bëggatuñ ko nag dañ ñoo war a yombalal gis leen wala bu ñu amee suñu coono ñoom ñu jot ci du dëgg mais comme loolu yëpp mënut a am an nañ ñaan ki nga xamante ne moom moo ñu fi indi bu ñu yóbbu na sedd guy kenn bañ ñoo yëg. sa relation ak moom ngeen nekkoon ak euh, ñooñu ay nit yoo xam ngeen a jege waaw dañoo bokkoon fu ñu doon liggéeyee ni ma ko waxee sànq rek dañu nekkoon 2S ñun ñaar ñoo fa daje moom fa la ma fa la moom fa jiitu ma ñëw fekk ko fa muy sama kal sant Soumaré ma sant Camara muy sama mag ah def ma rak ñuy toog di waxtaanee lu baree bari loolu moo indi suñu relation ba ku nekk jóge fa ñu continuer ko. nooy yëgee xew-xew bi daal ci askanu Sénégal. Euh, xew-xew bi moom dama ko yëg dañ ma ko envoyé par WhatsApp damaa jekki ñu envoyé ma ko par WhatsApp ñu ne ma dafa génn àdduna. ci laa jëlee sama téléphone di woote awa camara mi woo naa ko parce que euh, instant yooyu mu doon def ay tractation di euh, ut ndimbal ak yooyu daf ma woo téléphone dama naka laay def après ñu commencé waxtaan ci euh, ba macha allah lii am daal di am. moo tax man bi amee lii bi mu amee rek dama ko moom laa njëkk woo laaj ko ndax dëgg la parce que yenn saa yi dañuy véhiculer ay ay information yoo xamante ne juste ak yooyu noonu loolu moo tax. ñu gis ko artistes yi bu ñuy dund loolu dañuy nekk seen millier di dund di gagné seen vie mais bu ñu nee ba tëdd rek dafay nekk jafe-jafe pour ñu ñu war a jël en charge jël ñu. Euh, kii euh, nday fii euh, Sénégal dafa metti aar bi dafa metti Sénégal te warul metti parce que ñu liggéey bu ñuy def liggéey bu noble la liggéey la comme liggéey yëpp. Euh, gis nañu nag temps yi euh, ci wàll euh, kii ak ak yelleefu artistes yi gis nañu waa présidence ñu ngi waxtaan ci statut de l'artiste ñu ngi waxtaan tamit ci maanaam copie privée yooyu ay ay ay droit la yoo xamante ne ay taxes yoo xamante ne dafa war a revenir artistes yi loolu bés bu taxawee artiste bu nekk dina ci mën a dund dina ci mën a faju ñu diin ci suñu liggéey bii moo tax ñi ngi ñaax autorité yi ñun saraxtuwuñu yalwaanuñu ndax ñun ay noble lañu ñu diiñ lañu ndax dañuy liggéey ba ñaqtooy xepp sonn sonn di dem di ñëw di parcœur yi ay texte di génn télé cat bi duñu dal bu baax a baax a baax kon nag dañ ñoo war a toppatoo ñi ngi ñaan nag autorité yi surtout président de la république nga xamante dafa dem fees nag bii passé di fa tudd copie privée copie privée boobu mooy redevance boobu nga xamante ne dañ koy jëlee ci benn télé bu biir Sénégal téléphone bu dugg biir Sénégal ñun artistes yi am nañ ci dërëm muy xaalis bu bëri muy nekk ay milliards yoo xamante ne yàgg nañ koo jël di ko dugal trésor public te artiste xaalis boobu artistes yee ko moom chaque année am nañ 2 milliards yoo xamante ne artistes yi war nañu jot seen xaalis boobu noonu xamante ne buñ ko jotee normalement dañ ci war a dund bu baax a baax a baax ñuy ñaan rek autorités yi message bu fort laa nekk di lancé ni nañ ñu jàppale ci xaalis boobu muy copie privée nañ ñu ko fay pour ñu mën a dund décemment comme ñëpp ndax suñu liggéey bi dafa metti comme liggéey ñëpp parce que liggéey la boo xam ne da ngay exposé di dugg si saalu jàmbu te doo tàggu borom donc lu si mënti am war nañ ñoo mën a jël en charge ba nga xamante ne du ñu am yenn besoin yi bay di ñaan ndimbal wala yooyu si internet mooy li may wax nii lii bu ñu ko fayee suñu statut ñu wane ni ñun ay artistes la ñu am suñu carte artiste ba pare ñu fay ñu li may wax ni copie privée bi du ñu soxla daraw kenn ndax dinañu fay suñu cachet ba pare ñu fayee ko foofu ci copie privée bi waa SODAV dinañu fay suñu xaalis ñu am auteur ñu am ay droit comme ñëpp parce que droit boobu am na solo mooy droit voisin nañ ñu ko fay rek ñun yalwaan ñu kenn ñaanuñu kenn nañu fay loolu loolu rek la ñu bëgg fu mu toll nii. ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu ngi lay masaw li nga xam ne ñoo ko bokk. waaw wax ngeen dëgg moom macha allah dabara dem koy ñaanal yàlla yàlla na xippe àjjana ci barke yonentu bi ku baax ku bëggoon njaboot ku bëggoon ay waajuram kuy liggéey ngir ak njabootam. musul bàyyi ak njabootam tumuraanke lu mu am njabootam a tax lu mu liggéey njabootam a tax gëm yàlla bu baax nag sopp yonent bi bëgg nag alaaji Malick moo doon wasilaam sëñ Babacar rek la bëgg daba sumaar loo ko mas si naxee rek nax ko ci sëñ Babacar ñi ñi nga xam ne yàlla daa defoon ñu bokk métier mi di liggéey bokk troupe jànqeen famille lañu woon ñoo bokk ndey ñoo bokk baay daba musul lekk bàyyi kenn lu mu am nit a ko wàcc loxoom dimbali nu te yàlla tax soo gisee tey jii man ma nekk ci waañ wii di togg ka yàq ba muy dund lu ma mës xewle ñun rek ñoo ko ci doy ñun rek ñoo ko ci doy boole na alalam ak léppam duñ ko defal kon tey bu wanee ginnaaw war ñoo taxaw taxawaay bu rafet moo war a tey jii ma takk sama ndigg man Ndeye Ngom nekk ci waañ wii di ko liggéeyal ndax ji na ma lu rawul ji na ma lu ëpp lii ma ko defal. defal na ma lu ne ci àdduna seq naa mun lu ne ci àdduna kon daba kenn mënu koo fay jànqeen gënnu kenn mënu koo xal dara loolu daba daal taalibe seex la ku bëgg ndeyam la ku bëgg baayam la ku sonn ci ak njabootam la ku sonn ci ñi mu ànd la no ñu ñoo doon fameem ndax jànqeen fami la nu woon ànd di liggéey xàccandoo doorandoo waaye kenn jéppiwu ko kenn jéppiwu ko lu baax rek ci la nekkoon ba wujji yàlla tey ñu koy ñaan na yàlla na xippee àjjana njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na yàlla teg loxo ci njaboot gi ci barke yonent bi ñu koy ñaan bu baax a baax. seen relation ngeen ay ati at dëkk Thiès tey ngeen jóge Thiès yéen ñëpp ñëw fii si këram Zac Mbao di ko rendre hommage. loolu ak mbaaxam ko waral ak jikkoom daba fu mu mënoon a nekk rek dañ ko fa fekk ndax bi muy dund fu mu nekk fekk nañ ko fa kon tey bu génnee àddina ñu yóbbu ko kees rob ko fa ñëw fii di ko fi ñaan la ñun waa kees seq nañ loo xam ne war nañ fi am juróom-ñett fan nekk ko njabootam ba mu ba mu sedd ndax loolu rek la ji loolu la ñu ji waaw kay yàlla na yàlla ne yàlla aw yiw yàlla bina leen tuyaaba ci barke yonent bi fa mu tëdd yàlla na ko gën fi mu jógee ci barke bi tata ko moom comprendre nañ ko ndax li liggéey ñoom ñaar yàgg na tata ñu ngi lay ñu ngi lay fay ñu lay ñoo ko bokk Daba Soumaré man de mënu maa wax dara ci Daba Soumaré Daba Soumaré depuis xale bu tuuti ñoo nekkoon HLM lu da Dakar muy sama cousine xaritam yi dikkoo ak Binta Ngom xeetuñu ko ci dara Daba Soumaré lu daan xew kër ga man maa fay nekk man ak ñoom koo Daba Soumaré bëgg ma sama yaay bëgg Yaasin Jum bëgg ko bëgg ba kii yaayam bëgg ma ba tax ba may may njëkkee ca biir kër ga Daba Soumaré jàpp loolu baax bay bëgg dee ba ni ma ndey jama sama doom jii di màgget la ma ko tey tey bi ñu yàlla mayee ñu may ko jëkkër maa koy làngal tey jii sama doom jaa ngi ne yàlla fekke ni dara ba awa bara nekk sama doom mook sama rakk mook sama doom ji ñoo depuis xale bu tuuti ñoo daan ànd daba di leen tegte ba heure bi daba mënumaa wax lu baree bari bari ci moom maa ngi koy dina masaw fii mu jógee yàlla na ko gënal fee mu tëdd yàlla defal ko ubbil ko buntu wut yàlla may ko suuf ci kawam yàlla defal ko jàmm yàlla njaboot gii mu fi wàcc nañ muy Malick Baro Awo Baro Adama Baro yàlla na leen yàlla boole te yàlla dàqal leen saytaane ak musiba ak balaa ñoom Marème Soumaré Bouba ak Soumaré ñoom ñëpp ñoom ñëpp yal na leen yàlla bàyyi sunu kanam ak mbooloo mu julli ci barke Nabi Moustapha ci barke Cheikhou Khadim yàlla bu daw dara dara lii mu wàcc fii nag yàlla nekk mbuuru xale yi. yàlla nañu dund ba say sëtam si ay sëtaatam doon ko ci barke Cheikhou Khadim. Matar ñu ngi lay nuyu waa Sodav yaa ngi ne. naa la doon def. ñu ngi lay jaale li ñu bokk. yaa ngi lay delloo jaal ñu ngi jaal tous les Sénégalais. tey ngeen ñàkk seen jigéen nga ñëw ànd ak sa jigéen ñoom Ngone nduur waa Sodav yéen ñëw ngeen jaale si ñu gis artistes yi situation yi ñuy dund seen mujjantalu dund yéen seen taxawaay si loolu. man suñu taxawaay tout le monde l'a vu ñun ñu ngi xeex pour euh, euh, pour le bien de des comédiens Euh, bon xam nga tamit ñun ay dañuy dañoo dañoo siiw donc mais ñëppay feebar ñëppay gaañu yàlla ji mu ñëwee moom kenn mënu ci dara mais suñu yàqul dara suñu liggéey démb tey mu am ay nit ñu gaañoo mu ñàkk am dañuy continuer di di xeex tey ñi ngi xaw ñi ngi xeex copie privée li ñuy wax copie privée mooy hmm, pour àq ak yelleefu artiste comédien yi euh, Euh, ñu ngi nii Fesnac lañ jógee d'ailleurs la président a ci ay waxam ci discours ba mu joxe que dana ci jóg mais yu mel ni lañ doon wut mooy que artistes mën a faj seen bopp mën a mën a liggéey mën a fayeeku mën a faj seen bopp mën a truc du leneen mais tey moom dañ ñëw am na xar c'est une collègue mais aussi euh, ku ñuy wax Sophie koo xam ne ci conseil d' bi cousine am la moom en tant que comédienne et que la ñu ngi ko doon taxaw donc tey duñ def lu dul ñëw jaale jaale waale mbokk sénégalais yëpp jaale waale képp koo xam ne mos nga ko seetaan ak ay mbokk ñu lay jaajëf parce que ñu déglu sànq Awa Camara nee na buntu yi mu fëggoon yëpp yéen waa SODAV rek yéen a ubbi mu mel ni yéen a ngi dimbali au moins artistes yi nga xam ne ñu ngi nekk dans a saa suñu feebaree dañuy fëgg mais dafa am lu ñuy wax fonds sociale fonds sociale bi ci SODAV la nekk euh, la PCA du Ngoné Ndour mooy signataire bi donc on reçoit des dossiers bu ñëwee bu dee ay comédien la comédiens yi nga xam ñoo nekk ci conseil yu mel ni man dañuy diligenté pour ñu jàppale leen bon dañuy def mais bu yàlla yàlla tudd moom kenn mënu ci dara bu ñu sañoon bépp artiste du dara lu ko naqadi yow tam di la jaajafal ci liggéey bi ñuy def parce que tamit ku nekk ci fa muy liggéey nga koy mën a waxalee fu muy def wax dëgg fa yàlla fépp fu ñu dem muy suñu bët xonk comme ñuy reetaan dañ koy fekk muy liggéey dëgg la journaliste yi jël nañ la mais dellu si waat suñu yëf. Badiane. Binta la. ku am ak ñun jàmm la ñun mooy sunu goro ñun mooy sunu goro mooy goro ñu yooy jaay ndey màgget jóge kaw la waaye jàmm da seq sunu doom seq koog jën masha Allah yàlla bu ko cat jiitu fa mu dem. ñu koy jaale ñu ngi koy jaale bu baax di koy jaale di ko jaale xale yi di ko jaale ñëpp. waaw am na ma métti trop am li ma métti te daba moom ñun ñëw dëkk ak moom ci koñ bi bu doon ku baax nag bu doon ku baax ñëw ci koñ bi ànd ak ñun ñu nekk benn lépp lépp lu ñuy def mu ñëw man mi xale. ba mu amee xew dama dafa ñëw mel na mooy sama yaay defal ma lépp defar lépp lépp defar ba mu baax suñu kër a ngi nii ñoo dend mais bu mu fi ñëwee daal dara ñaaw macha allah dara ñaaw ku baax la ñoo dëkk moom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te yéexañu yàlla xaree ko àjjana yàlla na rëcc lu ñu doon ci àddina. ngeen dëkkoon ak moom fii si Zac Mbao dëkk bu rafet moo waral tax yéen waa Zac Mbao yéen ñëpp depuis démb ba tey kenn toogul kenn taxawul yan la amoon ak jàmm ak salaam ak baax. baax def ak ñëpp jàmm ak salaam baax ak ñu baax daal xeebul kenn ku xewle waaw man damaa toog démb rek sama doom bu góor ma génn dem marché ñëw ndigg sama doom bu góor ne ma mère dama gaañu na ma ne ko bu ma waxati lii mën na ma billaay mère dama gaañu na sama àddina tukki maam lu ma métti torop waaye nag àddina moom noonu la demal maa ngi ñëw la yàlla na ko yàlla xaree aljana barke Seydina Muhammad voilà mu ngi noonu gis nga ko pap euh, li nga xam ne moom la dëkkandoo bi mujjee wax mu mel ni bu ñu nee diw baax na dañ naan ndax mbokk yaaka wax ñi mu bokkal ne aussi ñoom la dëkkal fi si Zac Mbao wax nañu ndax tey lañ ko doon euh, li ba tax ne bu ñu feebaree war a mën bu ñu nekkee di bégal askan wi ñoom loolu li nga xamante ne lañ koy am di ko yóbbu seeni kër kon bu ñu nee ba tawat nga la nañ ñi nga faj ñu jël leen faj leen ba nga xamante ne seenu njaboot bu ñu demee ba jeexal itam ñoom ñi euh, ñëw tey Zac Mbao bi ñuy ñëw nag fekk nañ ñuy dem ñoom Bella ñoom ñëpp ñu leen koy jaal di teg njaal mi si loxo tonton Cheikh Seck mu séddale ko képp koo xamante xamante ne yaa ngi nekk troupe jànqeen mu nekk lu métti lool lool massa fejul góom waaye seet na xel waaye si gindigaale itam bu ko nit amee naqar nga wax ko ko yaakaar naa xelam dina mën a dal kon ñu ngi koy massa bu a baax di massa wu seexam ñu fi bàyyi ak doomam bu góor boobu di ñaan yàlla na yàlla teg loxo si ñoom euh, teg li nga xamante mooy njaboot gi teg si loxo bu baax a baax a baax di jaajëfal ki nga xamante ne la àndaloon tey si caméra bi Ousmane coordination bi ñoom Papis Mbaye ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax rendez-vous incha allah mardi 13h30 xew-xew bu am si biir réew mi 7TV télé bi ñu nuru ba noppi ñu dajale jërë jëf